lii nag dafa don tradition ba nga xamante ne Sud FM groupe Sud FM rawatina Sud FM Kaolack moo ngi def at su jot ëpp na ñaar fukki at ya nga ne koy def fii chaque weeru koor ñuy Oustaz Sall muy ci suñu bu nekk Dakar ñu benetem benn thème bu méngoog actualité ñu daal di ko euh, euh, mu waxtaan ak ñun ren la ñuy islam et citoyenneté. citoyenneté buñ ko déggee mooy que ne le citoyen taxawaay bi mu war a mën a am vis-à-vis ci ay dëkkandoom vis-à-vis ci ay institutions yi vis-à-vis ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu dëkkuwaayam. bi ci gën a mandargaal mooy lu ñu génnee dimanche ba le passé wala le vingt cinq le vingt cinq mars bii ñu génn le vingt le vingt quatre mars bii ñu génn. mooy dem ci urne yi ku nekk woon exprimer sa volonté ñu daal di voter loolu moo njëkk ci citoyenneté citoyenneté day fexe di defar dëkk di defar dëkkandoo di defar li ñuy li nga xamante ne moom mooy alam bi environnement ak lépp la nga xamante ne jege na ko kon dégg ngeen discours bi nga xamante ne Oustaz Alioune Sall daal na ko yëkkati rawatina ci li nga xamante ne moom mooy islam et citoyenneté lii doon la nga xamante ne dafa nekk ay valeurs yoo xam ne dañ ko fekk ci groupe Sud Communication Bon reçu une Communication idéologie L'idéologie, idéologie de xam de génération en génération parce que dans les rôles, à part la scène nationale Sud FM moom mooy rajo bi nga xamantene mom mo fi jiitu ci paysage médiatique mais bobu ba léegi amagul benn démenti ba nga xamantene comme ni nga ko waxee woon daaw nit ñëw na pour démentir ko wala ñu joxe information ñu né fausse information la Sud FM la jóge wala li ñu wax ne Sud FM la jóge du noonu mosuta am dafa don kon valeur yi nga xamantene dañ koy passer de génération en génération don lekk ba nga xamantene mom moy mooy bu gëna cher kon li amuñu tout le temps occasion de dem fekki auditeur ak auditrice yi

patient maanaam ñu muñ endurant te xam lu ñu bëgg parce que aussi c'est vrai que xam nañ situation nu muy demee koo ci jël stage bu génnee bu defee stage benn weer ñaari weer wax rajo wala wax télé ñaari yoon bu génnee day jàpp ne egg na fu mu war a egg te alors que eggul foofu ñu ñi di wax ak yéen lu mu tuuti tuuti def nañ lu mat ay 5 ans jàpp 10 an yoo xam ne ci stage la ñu nekk parce que da nekk stage nekk contrat de prestation kon taxawagoo te teewut am nga sax xam-xam jàngi nga école mais formation bi nga xamante ne moom mooy def sur le terrain moom mooy moom mooy motali le journaliste moom mooy motali le jeune reporter kon loolu doon la nga xamante ne maa ngi ñaax jeune génération bi rawatina ñi nga xam ne ñooy soog a dugg ci métier bi mag naa leen maguma leen parce que rawante ñoo bokk génération mais li ma leen dénk mooy man fi ma jaaroon mooy nañu muñ nañu xam li ñu bëgg te nañu yokk seen xam-xam lii buñ ko defee ba pare boole ci gëm seen bopp lii buñ ko defee amut kenn ka nga xamante ne mën na leen jaay dara wala wax leen lu nga xamante ne dema demawut noonu kon loolu daal laa leen di yokk